xolam sànq xolam bi xat ba nga xam ne buy déglu wax yàlla day yàkkamtee dem daf koy xatal bu ñu waxee lu tiis daf koy naqari du ko bëgg a dégg nga xam ne du bëgg lu dul jóg fa xolam day kamañoo ni nga xamee ne nit ki bu yéegee ci asamaan ba weesu jaww ji muy mën a noyyi noonu nga xam ne la muy noyyi dootu mën a dugg ci ay xëtëram noonu muy naqaree ci moom noonu la ki gëmul yàlla wala ki nga xam ne xolam deena wala ki nga xam ne ngëmam dafa woyof noonu la ko loolu di def lii dañuy dal di am mbëggum déglu ko bu baax buñ ko dégloo sopp ko ndax li ko yàlla defal ci njàmbaar benn mbindeef amu ko li ko yàlla defal ci xel benn mbindeef amu ko li ko yàlla defal ci sañ-sañ ak kàttan benn mbindeef amu ko ni ko yàlla fonke fonke ko benn mbindeef ni nga xamee ni itam noonu la yërmande yàlla gaawa a dikkale nit ci wax lu jëm ci moom ak sopp ko amul ci benn mbindeef bu yàlla bind gannaaw nag kon mooy sababu sunu texe bu nu amee bis boo xam ne ci ak mi mën na faxas sunu bàkkaari at mépp ba lu nu defoon ci at mi sunu borom baal nu ko àgg it ci gu gunu ci yàllay wàcceel goo xam ne dana mel ne gunu doon jaamu at mépp gannaaw farata yi luy naafil la ndax ndegam ulama yi dañu wax ne waxuñu jekki ci kanamu bu yonent waaye jekkaaleeg seexul murabbi yi rek moo ëpp doole naafil la moo ëpp doole sarxe moo ëpp doole di sikkar yàlla loolu li ko waral moo di li ngay dégg muy yeesalaat sa xol li ngay dégg muy yeesalaat sa xol jataay bi nga toog dootuñu la bàkk bindal bàkkaar ba bi nga fay jógee boo fi jógee tam ñu toog ñeent fukki guddi kenn du la bindal benn bàkkaar mënul la am lu dul ci déglu juddub yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak i jaar jaaram moom Muhammad alayhi salaatu wasalaam suñu borom yónniwul malaayika ci nit ñi ndax malaaka su ñëwoon doomu aadama yi duñ mën a jaxasoog moom duñ ko mën a roy buy wax duñu xam li muy wax duñ ko roy ci lekk duñ ko mën a roy ci naan duñ ko roy ci dëkkaale duñ ko roy ci jaay ak jënd duñ ko roy ci sëy duñ ko mën a roy ci dara suñ borom sàkk koo xam ne nit lay doon nuroog nun ci zahir ci lépp nga xam ne lépp lu muy metti dana ko metti muy yëg xiif di yëg mar di yëg tiis di yëg métit di yëg ñàkk lépp loo xam ne bu la dalee nga yëg ko bu ko dalee mu yëg ko muy kon doom adama ju sotti joo xam ne manquewul dara wuutewul dara ak doom aadama yi ci zahir muy benn jëmm dong suñu borom yónni ko ci mbooloo moo xam ne ñëpp a umpale yàlla ñëpp a yàlla muy mbooloo moo xam ne dañoo yàgg ci réer ak jaamu xërëm xam ngeen ne màkka kuur gi nga xam ne moo wër kaaba gi lu mat ñetti téeméeri xërëm ak fukk ñett mu ngi ci woon jamono yi ñuy yónni yonent bi sa mu di ay nataal yoo xam ne dañ koo tabax di leen jaamu jàppe leen ñu di ay yàlla kaaba gi gannaaw Ibrahima ko tabaxoon bu yàgg Ibrahima di yonent tabax ko ci ndigalal yàlla suñu borom ne ko wooteel ba mu ko tabaxee ba noppi moom Ismaayila doomam Ibrahima woote ci ndigalal suñu borom. nit ñi di ko wuyu jinne yi di ko wuyu ñii di ko wuyu ci seen biir ndey ñii di ko wuyu ci seen biir baay ba nga xam ne képp ku ko wuyu woon da nga ko wuy ji te da nga dem Makka te da nga wër Kaaba ga bi mu wootee ñi gëm ñi ko doon wuyu sey ba mu ba mu wootee ba àggale seytaan yi ñëw taxaw fa mu taxawoon dal di woote moom itam ba mu wootee nit ñi di ko wuyu ci seen biiri ndey ñi di ko wuyu ci seen biiri baay ñii di ko wulli ci seenu ruu fekk ñu judd ba noppi képp koo xam ne itam wulli wan nga ba seytaane wootee